gouvernement du Sénégal dafa réformer depuis 2011 en disant que fallait def licence master ak doctorat licence ñetti master ñaari at la master 1 ak master 2 am doctorat mais am na wax ju commencé jóg étudiants yi di wax ne way master yi man ministre bi dama ne bu inscrire kenn non dama ne nañu suspendre bu kenn inscrire tant que man joxuñuma ay information yu ma laajte yi nga xamné dama né recteur bu nek depuis juróom ben wèr maa ngi koy laajte nak ma wax ñaata master mo am sa université master yi fan lañ koy défé ci ban UFR lañ koy défé mbaa bar faculté ci ban département mo koy def ñaata enseignant ñoo ci intervenir ak ñaata étudiant ngeen di encadrer ak étudiant yi ngeen di encadré bu ñu ñëwé bu ñu inscrire au première année bi ci ñaari at yi ñaari at yi ñu fa def est-ce que dañuy def ñaari at am dañuy def juróomi at parce que gis nañu ñi nga xam ne dañuy dem ba def juróom-benni at ma ne loolu tamit nañ ko wax pour ñu xam lan la ñoom seen bopp ñu gis ko parce que ñun dañoo constaté que ne étudiant bu ñëw master téeméer boo ci jël juróom-ñetti fukki yi dañuy redoubler alors que master dañu bu ñuy jël nit mu def master dañuy ne kii jàng na am na xarañte bu nga xam ne war naa mën a continuer njàngam. te loolu defe naa loolu critères yooyu ñu ngi fi ba léegi tamit mais bu ñu leen jëlee dañuy redoubler téeméer yu ñu fa yóbbu juróom-ñett fukki dañuy redoubler loolu nag dysfonctionnement la bu nga xam ne amul benn système enseignement supérieur bu koy nangu moom moo tax ma laajte université nañ ma jox man damaa defe ne woon ne sax étudiants yi loolu dañoo waroon tàccu parce que yow nga xam ne da ngay réclamer di jàngi jàng boo xam ne boo demee xam nga ne da ngay redoubler vraiment laa ci wax en tout cas du supprimer master système bi mu ngi fi critères yi. Euh, def master bu ku ko remplir ñu bàyyi la cela veut dire boo amee jàngalekat yu doy yu xarañ yu mën a jàngale ci affaire bi am grade bi dinañ leen bàyyi ñu ubbi ko mais du ñu bàyyi nit ñi ubbi ay uni ay master yi nga xam ne nit ñi dañuy ñëw jàng te du ñu du ñu pare mbaa bu ñu paree tamit du leen amal benn njëriñ